mbokk alhamdulillah ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di dellu siwaat ci suñu téere bi ñuy topp di risaala bu ibnu abi zayd alqayrawani ñu ngi nekk ci baabu jumalin min alfaraid muy quarantième bunte bi toppoon nañ ko ba bu dee yor yaa ngi yor mool bu xonq bi traduction bi ñu ngi ci page cent douze bi boo dee da nga yor samru daani bi ñu ngi ci page six cent cinquante sept ñu ngi noonu ca ligne bu njëkk ba si muy waxee wa zakatu l ayni walxarsi walmachiya farida wa zakatu l ayni walxars walmachiya farida mi ngi noonu 657 ci samaru daani bi ak ci 112 bu dee traduction bu xonq bi nga yor kon bu dee bokk nañ ko gis tey jii mooy fukki fan ak juróom-ñeent ci jumaadal uula muy rakkaati gàmmo ci tombeeg le 3 janvier ci 2021 buñ jëlee suñ bind bu jëkk daf ne wa zakatul ayni mooy zakatu alal yi ñuy denc wal xarsi ak tool ya wal maashiyati ak jur ga ñuy sàmm farida loolu farata la wa zakatul fitri sunnatun zakatul fitri nag muy murum koor sunna la boo xam ne faradaha rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonenti moo ko farataal mbokk bunt bi wax nañu leen ne bunt la buy tënk daanaka la ëpp ci liñ fi nar a jàng détaillé woon na ko ca njëlbeenu téere ba waaye ngir fàttali la moo tax mu defaatal la ab tënk mu wax la zakat la nga xam ne moo cay farata moom mooy xaalis bi nga xam ne dañ koo denc ki nga xam ne dafa denc xaalis bu ñuy def échange ku mel noonu zakat da cay war bu doon te ne du xaalis bu ñuy def échange ku mel ni ay o ay jamaak ay weñeek ay yu deme noonu loolu taxul ñuy wax loolu nag la ca doon cosaan mooy or ak xaalis waaye lépp luy taxaw place am zakat da cay war te mooy dollar yaag euro yaag CFA yaag loo ko mën a tuddee tool bi nga bayit zakat da cay war détaillé woon na la ko ci njëlbeenu téere ba mooy tool buy meññ loo xam ne dañ koy denc di ko dunde amma bu dee lijum yaa yu demee noonu yooyu zakat waru ca gannaaw ba it jur gi nga xam ne dañ koy sàmm mooy nag xar bay ak giléem yii la zakat war yeneen yu dul yi zakat du ca war xanaa lu dul nga jublu ca commerce lépp loo xam ne moom danga caa jublu commerce su boobaa zakat da cay daal di war ndax dañ ne commerce xaalis buy tourné la kee daa jënd ceeb jaay kee jënd ganaar jaay kee jënd xaal jaay loolee kon zakat day war ca loolee gannaaw ba it muurum koor yéen ñëpp yéen a ko bokk xam yonent bi alayhi salaam mooy ka nga xam ne moo ko farataal su dee dañuy jël beneen bind mu ne wa xajjul bayti farida aji ca néegub yàlla ba day farata la wal umratu sunnatun waajiba amma umra nag sunna la boo xam ne bu war la wa talbiyatu sunnatun waajiba talbiya ba ngay wax labbayk allahumma labbayk sunna la bu war wa niyatu bil hajji farida yéene bi ngay yéene ne yaa ngi aji wala umra da ngay def ifraad wala tamattu yooyu mu ne farata la wa tawaafu wa tawaafu lil ifaadati farida tawaaf ba ngay def ci bisu tabaski ba mu ne loolu farata la wa sa'yu bayna safa wal marwa farida daw safa ak marwa ci aj farata la wa tawaaful muttasilu bihi waajib tawaaf ba nga xam ne nag mooy jokkaloog boobu muy tawaaful qudum ba ngay def mu ne loolu loolu wareef la wa tawaaful ifaadati akadu minhu doonte ni tawaaful ifaada ba ngay def ci tabaski ba moo gën a nekk lu gën a dëgër gën a sax gën a yeyoo def wa tawaafu lil wada sunna amma nag dini bi tàggu kaaba ga loolu moom sunna la kon mbokk fii da lay tënkal aj aj maka farata la benn yoon ci dund doomu aadama bi benn yoon ci dund doomu aadama bi bu dee umra nag borom xam-xam yi dañ caa wuute ndax farata la wala du farata bu dee mazhab malik ñoom dañ naan sunnatun waajiba la te waxoon nañ leen sunnatun waajiba amul kenn koo xam ne dana ko man ba pare bañ koo def mel ne rek tey ñoom buñ doon wax naan julli it sunnatun waajiba la xam nañ ni amul benn jullit bu yéey ci moom tey la tabaski jullee kay baa nga ne dara dalu ko ba pare mu toog naan ah waaye loolu sunna la rek déedéet kon it umra mi ngi noonu koo xam ne mën nga ko danga koy danga koy def mu ne booy at wala umra la ngay taxaw naan labbayk allahumma labbayka mu ne loolu nekk na loo xam ne nii sunna la bu war lum bon bon war nga ko def benn yoon donte ne nag saxal nañ nga koy def ba baa ngay wër kaaba ga booy dem arafat ba baa ngay sànni jama jamratul aqaba waaye lum néew néew nga wax benn yoon labbayka allahumma labbayka na doon xajjan wala umra ak la nga xam ne moo ca topp ci ay sunna labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak mu ne yéene ba ngay yéene ajit farata la nga xam ngeen ni ci jëm makka imma mu yéene umra kese bu dee day def tamattu wala mu yéene ak kese bu dee day def ifraat wala mu yéene aj ak umra boole bu dee day def qiraan bisu tabaski ba wër ga ngay wër si kaaba ga loolu farata la bal loolu ponk la ci ponk aj yi daw sa fag marwa it ponk la ci ponk aj yi farata la amma bu dee ne avant ngay def Safa ak Marwa wër ga ngay jëkk war Kaaba ga loolu wareef la te xam ngeen ne ki aji Makka Kaaba gi yoonool nañ mu wër ko ñetti yoon mooy buy doog a ñëw ñu tudde ko tawaful qudum da koy wër doog a daw Safa ak Marwa bisu tabaski ba mu wër ko bis buy jóge Makka it mu wër ko moo tax mu ne wër ga ngay wër nag booy nibbi loolu moom sunna la te loolu bu dee mazhab malik ñoom dañ ne sunna la boo ko defee baax na boo ko defalit moom amoo ca benn bàkkaar te it dara du la ca war boo demoon nag yeneen mazahib ñoom dañ naan waajib la boo ko bàyyee da ngay rey dara waaye bu dee mazhab malik ñoom dañ ne loolu sunna la ku ko man def ko ku ko mënul dara nekkul ci loolu mi ngi noonu su dee da ngay jël beneen bind mu ne والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة غدم فناني تمنا تمنا بني سبل عرفة نتدك يوم التروية من لول سنة لا والجمع بعرفة واجب بول تسبارك تقصان عرفة لول موم ورفلة والوقوف بعرفة فريدة غتحو عرفة نك لم نيو نيو فرتلة wa mabitu bil muzdalifa sunnatun wajiba nga fanaante muzdalifa loolu sunna la bu war wa wuqufu mashar al haram ma'mur bihi dem taxaw ca mashar al haram muy montagne ba yonent bi taxawoon nga taxaw fa ba fajar jot ba nga julli suba ba pare loolu it lu ñuy digle la waram yul jimaar sunnatun wajiba sànni jamra ya sunna la bu war wa kazalika al xilaaqu naka noonu wat sa bopp wa taqbilu ruknu sunna ah fexe ba foon xajrul aswad it sunna la mi ngi noonu mbokk kon day wax ne kiy aji ñu ne suba la arafa mu daal di dem ca mina fanaan fa mu ne loolu day buñ ko xoolee dafay nekk sunna mi ngi noonu ca ñoom dañ ko yemele ci sunna wante ne am nañu koy def waajib ci ki nga xam ne mën na ko boole tisbaar ak takkusaan it na ko noonu loolee moom da koo def boole ko ci waajibaati at yi képp ku dem arafa fa nga jullee tisbaar fa nga jullee takkusaan taxaw arafa it ak lu mu néew néew néew loolee dafa nekk farata ci faratay at te ki fa taxawit heure boo fa mën a yegg amoo droit génne fa lu dul guddi da la faa fekk te mooy jant bi day so boo demoon sax ñu yor at gi duñ permettre kenn génn tant que joxewuñu ordre ne jant bi sona nit ñi mën a dem naka noonu it lay wax ci ki nga xam ne dafay dem ca Muzdalifa fanaan fa mu ne loolu sunna waajiba la de loolu ci mazhab Malik dañ ne sunna la bu war te sunna bu war boo ko bàyyee da nga war a rey dara doonte ne xam ngeen nit ñi duñu fanaan Muzdalifa doonte ne fanaan dañ ni lépp lu mën a doon boo defee la ëpp day jël turam te ji ki nekkoon Muzdalifa ba xaaju guddi kooku jël na turu ko fa fanaan allahuma lu dul rasul sallallahu alayhi wa sallam moom dafa fanaanoon ba fa la jullee fajar su ko defee ko amul ngànt moom nga xam ne loolu mooy la yonent bi alayhi salaam defoon soo jullee fajar ba pare it nga taxaw fa di ñaan masharul haram boobu mooy fii yonent bi taxawoon doonte ne yonent bi alayhi salaam doon wax ni man de fii laa taxaw waaye nag Muzdalifa fu fi waay taxaw rek nga xam ne taxaw na fa mu war a taxaw sànni jamra yoon sunna la bu war te mooy képp ku ko mën da nga koo war a def ku ko mënul ñu defal la ko koo xam ne mën na koo def def ko dafa war a tuur deret gannaaw ba it watu wala nga wàññi bu dee jigéen ña yooyu yëpp ay sunna la yoo xam ne yu war la su la yàlla mayee kattan nga foon xajurul aswad it xajurul aswad loolee dafay nekk waajib ci yow nga foon ko donte ne un dixième mu ñu dem makka amatuñu kàttan ci loolu mi ngi noonu sooy yeggale bind bi mu ne wal xuslu lil ihram sunna nga sangu ci heure boo xam ne da ngay def ihram mu ne loolu day sunna la wa ruku inda al ihram sunna nga ruku ba ngay ihram lan la ci jublu mooy nga julli ñaari rakka fa ngay ihrami mu ne loolu sunna la wa xuslu arafa sunna nga sangu ci bisu arafat loolee sunna la wal xuslu li duxuli makka mustahab waaye nag sangu ngir dugg makka loolu moom dañ koo sopp rek lii kon mbokk ab tënk la lay fàttali ci ya nga xam ne dafay nekk ci aj makka nga xam ne yii ay sunna la yii ay waajibaat la tonte ne bokk na ci loolu fan yi ñuy fanaan te mina loolu waxu ko loolu moom boo demee ca mazhab Maalik ñoom dañ naan sunna la boo xam ne sib nañ ko ka man ba pare bañ koo def am na yeneen mazahib yoo xam ne ñoom dañ koo yemele ci sunna rek ku fa fanaan def nga tuyaaba ju rëy ku fa fanaanul it amoo ca bakkaar ama bu doon lu mel ne mazhab imam ahmad ñoom dañ ne loolu waajib la kenn amul droit di ko bàyyi lu dul ko am ngànt ndax yonent bi alayhi salaam ca jamonoom ñam joxoon ngànt ci ñu des makka mooy ña nga xam ne dañoo amoon ay ngànt loolu it kon jullit boo xam ne aji nga makka ca amoo benn lor masalan amoo foo fanaan ci tant mina yi wala feebar nekk nekkul ci yow ak yu dema noonu xamal ne la gën ci yow day mooy nga fanaan mina su loor amee nag fanaan bi ngay fanaan makka loolee nekkul loo xam ne nii luy yàq ci sa aj dara loolu kon moo aju ci tënk bi mu la tënkal ci loo xam ne lépp boo delloo ca gannaaw téere ba ca bopp téere ba détaillé na la ko lépp ci loolu loolu moo aju ci wàllu aj makk jàpp ma ni comme aj gi xëy na des na ca man nam question yi du ci bari mën nañ jël beneen bind bi rek mooy wasalaatu fi ljamaa afdalu min salaati lfazi julli ca mbooloo ma day moo gën julli kenn bi sabiin wa ishrina daraja ci ñaar fukk ak juróom ñaar ci ay daraja wasalaatu fi lmasjidi lxaram julli ca masjidul xaram ga nekk ca kaaba ga wa masjid rasul ak ca jàkk yonente ba fazan fekk yow rek afdalu min salaatin fi saair al masajid loolu de moo gën nga julli woon ci mboolem yeneen jàkk yépp waxtulifa fi miqdaari tadif li zalika wuute nañu ci kemuk ngënale ci loolu bayna al masjid al haram wa masjid rasul ci diggante jàkk masjid al haram ak jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam walam yuxtalaf ann salata fi masjidi rasul afdalu min alfi salatin fi ma siwaahu ah wuute wuñ ci ni julli ga nga julli ca jàkk yonente ba sallallahu alayhi wa sallam moo gën junni julli yoo julli feneen xanaa siwaun siwa masjidil haram ba mu des masjidil haram min al masajid ci jàkka yi ñu ngi noonu mu ne wa ahlul madina bu ñu delloo ca wa ahlul madina yaquluun inna salata fihi afdalu min salatin fi masjidil haram biduni alf ñoom dañ naan julli ca jàkka yonente ba day moo gën nga julli woon ca jàkka masjidul haram donte ne duñ ko yeggale junni yoon wa hada kulluhu fi lfaraid lii ma la wax lii lépp nag mooy bu ñuy wax farata wa ama nawafil bu dee naafila nag fa fi lbuyuuti afdal su boobaa ca kër yi la gëni wa tanafulu bi rukuui li ahli makka ñu bari di naafila ay ruko ay rakka ñeel waa makka ahaba ilayna min altawaafi moo gën ci ñun ci heure bu ñu duggee di wër kaaba ga wa tawaafu lil ghuraba waaye wër ga muy wër kaaba ga ñeel étranger day ahabu ilayna moo gën a sopp ci ñun min arrukuu'i ci ñu nekk di naafila ci julli li qillati wujudi zalika lahum ngir yee tuuti amug loolu ci ñoom ay fa ñu dëkk kon mbokk fii day wax rek ne julli ca mbooloo ma day moo gën nga julli yow rek ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar borom xam-xam yi am nañu wuute ci julli mbooloo am na ñoo xam ne dañ ne sunna la bu ñu sopp am na ñu ne fardul kifaaya la su dee ne am na ñoo xamee ne ni dañ caa taxaw yóbbaale nañ ña ca des am na ñoo xam ne dañ ne sunna mu akkada la te mooy mazhab Malik te mooy képp koo xam ne nii amoo ngant daal yeeyul nga koy bàyyi soo julliwul it amoo ca bàkkaar waaye nag yeeyul jullit di ko def loole am na nag ñoo xam ne nii dañoo jàpp ne déedéet fardu ayni la képp koo xam ne dégg nga nodd gi ci amoo ngant farata la ci yow nga dem wuy ji am na sax ñu néew a néew a néew a néew ci ñoom ñu ne charte la charte mooy lan mooy boo wuyjiwul boo jullee julli gu baaxul waaye la sa gën a digg doomu rek mooy daal nga la waay yow jullit xamal ne julli gi ñuy julli ca mbooloo ma su dee ne am nga ngant loolee muskil amu ci waaye ngalaay bu amul benn ngant dégg noddukat bi taxaw hayya ala sala xamal ne yow lay woo yow moomu lay woo léegi nag ci am nga benn ngant pour wuy ji nga bañ a wuy ji mbokk loolu xel nanguwut loolu su ko defee daal loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ca la jóge nag di wax diggante jàkka yi bokk na loo xam ne borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci julli gi nga julli ca jàkk yonent bi alayhi salaam moo gën junni julli ca ya nga julli beneen jàkk bu dul moom léegi nag mu des waaw julli ca jàkk yonent bi ak julli masjidul haram ban moo gën bu dee ulamaaw yi nekk madina ñoom dañuy jàpp ne madina moo gën makk julli ga ngay julli ca jàkk yonent bi moo gën julli ba ngay julli ci masjidul haram ñoom loolu la ñuy wax donte ne bu ñu delloo ci jumhurul ulama ñoom dañoo jàpp ne déedéet màkk moo gën madina ndax màkk fa la ñuy aje jullit mën ngaa dund ba dee doo dem madina ca du yàq dara sa diin amma màkk moom fokk nga dem fa fa la kaaba ga nekk ñaareel bi dafa sax ci hadis yoo xam ne nii yonente bi alayhi salaam wax na ko imam ahmad solo kook ñeneen ñu dul ñoom yonente bi alayhi salaam ni julli ga nga julli ca masjidul haram day moo gën téeméeri junni julli fa julli ci beneen jàkka lu dul sama jàkke ji mi ngi noonu amma nag bu dee ulama madina comme ñoom wéru luñu xadis boobu ñoom dañuy sax rek ci ne julli ci jàkka yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo gën julli masjidul haram waaye la nga xam ne moom la ëpp ci xeet bi dëppoo mooy rakka bi nga julli ci masjidul haram muy farata cent mille rakka lay uute lay lay ëppee loo julli feneen donc même bu aj màkk amul woon jurit bu yàlla may kattan rek war ngaa dem dabu ji loolu loolu bala ngaa am téeméeri junni rakka da nga dund lu ëpp cinquante cinq ans ci farata kon loolu kenn xamul tuyaaba boobu ni mu toll kon bu dee ne masjidu al aqsa xadisa ci rot mooy julli goo fa julli da nga am yoolu juróomi téeméeri julli te yéen julli ci beneen jàkk bu dee feneen masjidul haram cent mille masjidul nabawi mille masjidul aqsa cinq cent loolu mooy li ëpp ci li borom xam-xam yi wax mu ne nag loolu mu ngi ci jublu farata waaye bu dee naafila moom yow mi nekkoon biir makka wala biir madina xamal ni nga naafila sa kër moo gën nga naafila ci jàkka ja loolu it day wane ne yow mi nekk parcelle wala feneen taxul ñuy wax mooy naafile bi gën mooy bi doomu aadama di naafile ci këram yeneen ci bari sam daan wax ni seen kër yi da leen ko jagleel lenn ci seen naafile bañ koo def ay bàmmeel lu waral loolu mooy bàmmeel kenn du ci naafile léegi nag la mu tëjee moom mooy ki nga xam ne dafay gan te Makka su ñëwee Kaaba ga mu nekkoon di wër Kaaba gi loolu day moo ëpp ci moom tuyaaba mu nekk di naafila bu dee waa màkk ñi dëkk kaaba gi nag nga xam ne bu suba ne ñu ngi koy wër ñoom naafil ba moo gën ci ñoom allahuma nag lii tax na ba léeg-léeg it yenn ci ujaaj yi bu ñu demee màkk heure bu ñu duggee bëgg a wër kaaba gi loolu it léeg-léeg mu jur ay coono yu bëri amma bu ñu delloo ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ajee ñetti yoon rek la wër kaaba gi wër na ko bi muy doog a ñëw wër ko bisu tabaski bi wër ko keroog bi mu koy tàggu doonte ne wër bu nekk juróom-ñaari wër juróom-ñaari wër lay doon loolu kon moom la wax ci wàllu googe su ko defee kon jàpp na bala ñoo dugg ci yeneen farata ñu xool ba xam mbokk yi liñ jot a wax ndax am na laaj boo xam ne dañ ko ci laaj bala ñoo dugg ci yeneen incha allah su dee na am na noonu mooy zakka bi da koy génne ci marchandise mi ala kulli xaal cosaanu zakkaatu li ñuy tuddee commerce loole xaalis lañ ko war a génne ndax xaalis bi moo tax ñu koy génne zakkaat waa ji stocké woon këram fukki tonni sukkar fas yéene ko dundee zakkaat waru ci kon lu tax zakkaat war ci commerce mooy xaalis bi mooy tourné léeg-léeg mu nekk xaalis léeg-léeg mu nekk marchandise kon loolee borom borom ci génne zakat warul tëb di ko génnee ci ci marchandise boobu xanaa lu dul ñaari mbir mooy war naa génne zakat te amul xaalis te it xam na ne lii may joxe day ñama koy jox aajowoo nañ ko su boobaa dañuy xam ne ngant moo waral loolu mais bu dee ngant amul dafa war a évaluer marchandise bi ñaata ñaata la toll ci xaalis dafa war a évaluer ñaata la toll ci xaalis ci base boobu te lay génnee la nga xamee ne nii moom mooy zaka zakat bi naam loolu mooy mbir bi waaw waaw naam ala kulli xaal ndax waaw waaleykum salaam wa rahmatullah ndax ndaw ndax xale dana yeyoo la nga xam ne ne mooy azaka xale bi ala kulli xaal ki nga xamee ne nii mooy zakat ñecca suñu borom tudd mooy masaakiina yi ak fuqaraa yi bari na ay aaya yu suñu borom di tudd ay yatim ci yeneen sarax amma bu dee zakat ba suñu borom ba mu koy lim man ko yemele ci fuqaraa yi ak masaakiina yi te mooy ñi nga xam ne dañoo majeur te seen loxo jotul seen gannaaw ñooñee la ñuy jox zakat bu dee xale ba imma moom ci boppam am na lu ko yor wala boog ay ña nga xam ne ñoo ko yor di ay kilifaam am nañ luñ ko yore su dee ne nag am na xale boo xamee ne nii waa joo xam ne dafa yor ay ay ay yatim moom moo yor ay yatim ca loxoom jotul gannaawam ku mel noone ca ña gën a yee ñu jox ko zakat ca la bokk loolee moom la nga xam ne la ñuy xam ci zakat amma woo xale bu ma jëragul jël zakat di ko ko jox loolee gisuñu ko cosaan ci islam buñ ko xamal wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal kon ñu jël suñu beneen bind day wax ne wa min al faraidi raddul basar xam leen ne bokk na ci farata yi jullit di sajji ay bëtam di bañ a xool lu ne raddul basari anil maharim muy téye ay bëtam ci bañ a xool lu xaraam wa laysa fi nazarati al ula nekkul nag ci xool bu jëkk ba bi gayri taamudin xaraj ci loo xam ne teyoo ko loolee benn ngant nekku ca wala fi nazari ila al mutajala dara nekkul ci jigéen boo xam ne benn taar nekkul ci moom imma ci naka yàlla binde ci ñaawaay wala dem na ba màgget ba taaram yépp a jeex wala fi nazari ila shabatin dara nekkulil ñu xool ci ab jànq li uzrin fekk na lor moo waral nga koy xool min shahadati alayha wa shibhihi ci lu mel ne seede ci kawam ci loo xam ne def na ko wala lu mel noonu waxad urxisa fi zalika lil xatib yombal nañ ci lool it ñeel kuy labat soxna ku mel noonu mën nga koo xool ba gis ci lu la doy kon bokk day wax fii rek ne farata la ci jullit mu bañ a nekk lu nekk mu koy xool moytu di xool lu xaraam te ñu xam ni doomu aadama bi lépp lay xool dafay am jeexital ci sa xol bi xol dafa am ay ouverture bokk na ca la muy dégg ak la muy gis loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bu xool googu nag mën naa nekk xool ak en direct ci nit koy dund loolu it dana nekk ci xool ga ñuy nekk ca télévision yaag porno yaag yu deme noonu bépp image boo xam ne bu xaraam la jullit warul nekk di seetaan loolu amma bu dee gis goo xam ne yow jubluwoo ko da ngaa tourné ni rek xool même bu doon jigéen bu def yaramu neen sax da ngaa tourné rek yem ci moom loolee islam du la ko toppee waaye boo ko xoolaatee ah loolu dañ la koy toppee mi ngi noonu ci loolu lay wax mu ni bu dee nag yenn jigéen yi nga xam ne amul lenn luy attiré ca ñoom xool leen dara nekku ca léeg-léeg ab jànq dana nekk def benn mbir boo xam ne fokk nga seede ko imma ci xam ko wala ci ñàkk ko xam masalan benn jigéen gi ni daanu na fii ah kenn xamu ko ku mel noonu yow nga ñëw xool ko ba xàmmee ko naa ki kat doomu diw la loolee da ngay gis ne dara néewu ci naka noonu it bu dee ne dañu lay may soxna soxna soosee ñu la bëgg a may islam may na la nga dem ba jàkkoorloog moom xool ko bu baax nga xam ni ah kii ñi muy bëgg a may kat nii la tëdde loolu mbir la boo xam ni ñu bàyyi ci xel bu baax te it ma dollil ci ndaw ñi ñu bañ a doyloo internet ñu xam ne soxna si internet moom wóorul yaa ngi dégg loolu ñu bàyyi ci xel bu baax loolu la jëkk a wax ci wàllu googe su dee da ngay jëlaat beneen bind mu ne wa min al faraidi sawnul lisaan bokk na ci farata yi fekk sa lamiñ anil kazibi ci fen wa zuuri ak duural wal faxshaai ak ñaawteef wal xiiba xëy ñi ngi noonu la nga xamee ne nii dafay nekk ci ak jëw wa namima ak rambaaj wal baatili kulli ak neen ya mboole seen qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir yonent bi nee na ku gëm yàlla gëm bi si pénc fal yaqul xayran aw li yasmut nay wax yiw wala mu noppi wa qaala alayhi salaam min xusni islaami almara wax na ba tey it bokk na luy rafetal diini nit ki tarkuhu ma la yonihi mu bàyyi lépp loo xam ne amalu ko njëriñ mbokk day wax ne bokk na ci farata yi téye sa làmmiñ téye sa làmmiñ moytu li nga xam ne mooy fen yonent bi alayhi salaam laaj nañ ko ndax jullit dana fen mu ne déedéet jullit du fen dóoral wala seede ay dóoral jullit du ko def wax ju ñaaw jum mën a doon muy faxsha jullit du génne ci làmmiñam wax ju ñaaw mu bokk ba ca gën a bon muy jëw ak rambaaj diggante nit ñi ak neen ya mboole seen li jullit da ko war a moytu mu indi ñaari xadis hadis bu njëkk bi yonent bi alayhi salaam dane ki gëm yàlla gëm ne àllaaxira mi ngi ñëw ne fexe ba lépp lu muy wax muy yiw wala boog mu nappi ca mbokk xam leen ni bokk na ci la gën a rëy lu jullit war a tàggat boppam mooy téye làmmiñam téye làmmiñam yonent bi alayhi salaam nee na nit ki bu xëyee cër yépp dañuy wax ak làmmiñ naan ko ah làmmiñ fa innama nahnu bik in istaqamta istaqamna wa in awajta awajna làmmiñ ragalal yàlla ci ñun ñu ngi sa gannaaw boo jubee daan jub boo dëngee dañuy dëng loolee kon ku ne war caa bàyyi xel yonente bi alayhi salaam ba ko Muaz ibn Jabal laajee naka lay def waay ba mucc ci sawara tàbbi àjjana mu wax ko ponk lislaam yi wax ko jihaad fi sabilillah te fin ba dana ko wax xanaa ko dookaay nag ma wax la lii nga xam ne moo tënk loolu lépp ëmb loolu lépp mu ne ko ak kay yum yàlla yónni mu génn làmmiñam bu sell ba daan na ko fexeel ba téye kii Muaz na ko waaw ah li ñuy wax rek yàlla dañu koy jàppee mu ne ko xanaa xama Muaz waa àjjana dañuy dëpp seen kanam ci safara naam naam waa safara dañuy dëpp seen kanam ci safara seen tànk féete kaw ca dara yóbbuwu leen ko lu dul seen làmmiñ looloo tax yonent bi alayhi salaam ne ki gëm yàlla gëm bi su penc walla waay ndey wax jàmm walla mu daal di nappi loolu li yasmut boobu ak samt boobu mooy fexe ba lépp li ngay wax nga koy segg bokkul ak nappi da ngay gis nit ku nappi daa nappi rek yàlla ko bañ a nappi waaye samt mooy koo xam ne mën na wax xam na li muy wax heure bu wax jotee mën na wax waaye nag ngi segg ba du wax lu dul loo xamee ne nii ah bopp jërëñam da caa nekk ku mel ne abi darda radiallahu anhu daana wax taallamu alkalaam kama tataallamu ay taallamu samta kama tataallamu alkalaam jàng leen di jéem a noppi comme ni ngeen di jànge wax loolu tax bu ñu delloo am na benn ci borom xam-xam yi jiitu woon mi ngi noonu ñu koy wax ka nga xam ne ni mooy Ilyas al Izzi Ilyas al Izzi nee na man day xadis bi dix ans entraîné woon naa ko ci dix ans yoo xam ne nii su ma xëyee maa ngi entraîné sama bopp pour bañ a wax lu dul loo xamee lu yàlla gërëm la ba jàpp ne ne yàlla yombal na ko ci moom amma xadis bi ko tëj ñaareelu xadis bi yonent bi alayhi salaam ne min xusni islaami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi bokk na luy rafetal diine nit ki mu bàyyi lépp loo xam ne nii nekkul farata ci moom ay nekkul loo xam ne lu ko itteel la di ko jëriñ ci àdduna wala alaxira lii day ëmb xadis bu njëkk bi ndax lii moom wax da ciy dugg jëf da ciy dugg lépp da ciy dugg te loolu bokkoon na ku ko mënoon a jël ñu ñëpp ñu bind ko suñuy portable ñëpp waroon nañu bind xadis bi ñu bind ko suñuy portable min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi bokk na luy rafetal dina nit mu bàyyi lu ko amulul njëriñ mbokk tànk yaa ngi ci lu la amulul njëriñ yaa ngi bàyyi lu la amal njëriñ ñu noonu bari na ci ay audio yu gars yi topp di déglu ay vidéo yu tay topp déglu wallaay mënoon ci jàng xisbu alquran ñaari isib mënoon nga ciy def zikrullah téeméeri la ilaha illallah wahdahu la sharika lah loolu mulku loolu hamdu ila axiri loolee kon ku nekk ci ñun war na koy bàyyi xel lan lay jël sama temps di côté jagleel ak jagle googu lu mu mën a doon xamal ne boo bëggee si dina rafet lépp loo xam ne yaa nga te ci wax ak jëf ku la laaj da nga xam ne lii kat njëriñ bii la ma amal sama àdduna wala njëriñ bii la ma amal sama diine mais loo xam ne boo ko defee ba pare xam ne amulu la benn njëriñ nga la way ba ko min xusni islaami almari tarkuhu ma la ya'nihi bokk na luy rafetal diine nit ki mooy mu daal di bàyyi lépp lu ko amalul njëriñ kon ñu jël beneen bind mu ne wa harrama allahu subhanahu dimaa al muslimin xamal ne day yàlla araamal na dereti julit ñi wa amwaalahum ak seen alal ya wa acraadahum ak seen der ya illa bi xaqiha xanaa lu dul aq ba ca yeyoo wala yaxillu dammu mri'in muslim lu dagan mukk deretu julit nitug julit illa an yakfura bacda imaani xanaa lu dul daa weddi gannaaw bam gëmi aw yazniya baada ihsaani wala mu njaaloo gannaaw ba mu amee soxna wala borom kër aw yaqtula nafsan bi gayri nafs wala mu rey bakkan ci lu àndul ak bakkan ba mu rey aw fasaadin fil ard wala yàq gu mu yàq ci kaw suuf aw yamruqa min ad-diin wala mu daal di génn ci diine ci pas-pas boo xam ne nii baaxut mi ngi noonu wal tukaffa yadaka téyel ma sa loxo amma la yaxillu lak ci lépp loo xam ne daganul ñeel min maalin ci alal aw jasadin wala ci la nga xamee ne nii moom mooy ay der aw damin wala ci deret wala tasa bi qadamayka bul dox ak mukk sa tànk yi fii ma la yaxillu lak ci loo xam ne daganul ñeel mi ngi noonu kon mbokk day wax ne yow jullit xamal ne yàlla araamal ne ci yow nga tuur dereti jullit loolee mbokk ci bakkaar yi gën a garaw la bokk mooy deret tuur deretu jullit wala nga lekk alalam wala nga yàq ab deram xanaa lu dul loo xam ne aqul islaam la te aqul islaam boobu it ka kay taxawal mooy attekatub lislaam bi te mooy képp koo xamee ni nii dafa murtat génn ci diine ji ku mel nii buñ ko jàppee dañ ko tuubloo su nanguwuloo tuub dañ koy rey képp koo xam ne njaaloo na gannaaw bu mu amee soxna wala njaaloo na gannaaw bu mu amee jabar ku mel nii bu ñu amee ci moom ay preuve dañ koy rey kenn du ko tuubloo dañ koy rey képp koo xam ne dafa rey bakkan ca bakkan boobee duna moom moo rey wala mu nekkoon yàqkat ci kaw suuf ku mel noonu it rek lañ yeyoo ñu rey ko bokk na ci ñi nga xam ne dañoo génn ci diine masalan ñi nga xam ne dañoo liggéey dégg ci réew mi bu fi jaasi nekkoon jaasul islam nekkoon ñuy dem ba naan diw mooy yàlla dem ba naan diw bind yàlla dem ba ne nangam nangam ñooñi da ngay gis ni même bu dee ñu ngay julli koor bu fi jaasul islam nekkoon dañ leen di tuubloo buñ tuubal dañ leen di rey mi ngi noonu ndax bëtt nañ diine ba jàll mi ngi noonu loolu kon la lay wax yow julit moytul sa kemtalal kattan alali julit ñi deru julit ñi dereti julit ñi gannaaw ba teel sa loxo bi bépp alal boo xam ne alal bu xaraam la ngal la way bu ko sa loxo laal bépp jëmm boo xam ne bu xaraam la ci soxna bu xaraam wala koo xam ne ci deram ngay teg lu xaraam loolu bu ko jegee loolu it la ñuy wax ci deret ja mi ngi noonu gannaaw ba nag lay wax say tànk mu ne tànk yi it fexeel ba bu ca dox lenn lu xaraam te loolu mbokk tënkal na la fii juróom benn cir yu doomu aadama di faggoo lu baax wala muy faggoo lu bon ba ci jëkk mu wax la bët ya ñaareel ba la nga xamee ni nii moom mooy làmmiñ ba bokk na ca la nga xamee ni nii moom mooy nopp ya ci bañ a topp di dégloo ko topp loo xam ne amadu la njëriñ naka noonu it bokk na ca la nga xamee ni nii moom mooy sa loxo ya nga xamee ni moom ngay jëfe bokk na ca la nga xamee ni nii moom mooy sa tànk yi ngay doxe la nga xamee ni nii itamit moo ko juróom benneel mooy la nga xamee ni nii mooy fay bi nga xam ne nii ca ngay mën a defee la nga xamee ni nii moom mooy moom mooy ak njaalu نعم نعم وعلى كل حال ñu tek ci bir bi rek mu ne wala tubashir bi farjika ngalla way bul jonjo ci sa pay muy sa awra aw bi shay'in wala dara min jasadika ci sa jëmm ji ma la yahillu lak ci lépp loo xam ne daganu la قال الله سبحانه وتعالى سنبرم سبحانه وتعالى نينا والذين هم لفروجهم حافظون ak ña nga xam ni seeni pay dañ koy wat dañ koy wattu ba baa muy wax ila qawlihi fa ulaika hum alaadun ñoom day ñooy ña nga xam ni ñoom ñooy ñu jéggi dayo wa harrama allah subhanahu alfawahisha yàlla araamal na ñaaw téef ya naam ما ظهر منها وما بطن لك فين اك لك نبو وان يقرب النساء ولا ني جيجي جيجين في دم حيدي في دم حيدهن كسن درت الرجل او نفاسهن ولا سن درتي وسن ميغي نونو لولو لاي وقت ولا غوغي وحرم من النساء ارامل نانتي جيجين ما تقدم la jiitu woon zakarna iyahu zikruna iyahu la nga xam ne tuddoon nañ ko ba pare ñu ngi noonu kon mbokk fii day wax ne fexeel ba moytu sa pay bi nga di ko jaxaseeg lépp lu xaraam looli ak ngóor jigéen la looli jigéen ñay fekk seen moromu jigéen la xatta bokk na ca ñi foye seen bopp ba di génn seen maniyu ndax suñ borom nee na julit ñi day mooy ñi nga xam ne seeni pay dañ koy wattu seeni pay dañ koy wattu képp koo xam ne passé na loolu sàkku keneen ku dul soxnaam wala borom këram suñ borom nee na ñooñu ñooy ñi jéggi dayo looloo tax ba jullit du sàkkoo bànneexu sëy lu dul ca ka nga xam ne way dencanteel la mu ne it yàlla araamal na mboolem ñaawteef na doon yee feeñ ak yenn bu yépp soxna bi nga xam ne lew na la doom heure bu nekkee ci dereti wasin amoo droit ànd ak moom ci sëy heure bu nekkee ci dereti règle amoo droit ànd ak moom ci sëy naka noonu it yàlla araamal na ñuy ànd ak soxna yi naka góor jigéen ñi di àndee gannaaw ba it nee na soxna yooyu tamit du képp kenn nga mën a def muy sa soxna bal yàlla araamal ne benn liste boo xamee ne daf lay wan ne ñii ñépp mun a caa takk kenn te loolu lépp bu ñu delloo ca buntu téere ba gisoon nañu ni waxoon nañu lépp loo xam ne nii aju woon na ci jigéen ñi araam ba faw ak jigéen ñi nga xam ne dañoo araam araam goo xamee ne nii dafa am fokk yàlla limité kon yaakaar naa mbokk mënees naa doy loolu ñu bàyyi bilal nodd xam naa ba ñu doog ko xool yi des ci question yi incha allah ki nga xam ne dafa jaay ab toolam toolam boobee da ngay gis ne même boo ko jaayee mu mën nisaab du ne azaka daa war ci la nga xam ne moom la jaay allahuma lu dul ne bu doon te ne man damay génn zakat masalan koor gu ne damay génn zakat tam xarit bu damay génn zakat léegi jaay naa sab tool am ca xaalis xaalis boobu su may génne zakat dama koy compter ci xaalis bi ma jotoon a yor boole lépp génne zakat su ko defee li tax ñu koy zakatal mooy xaalis liquide la bu fekkee xaalis liquide mais du ne lam jóge ca tool ba moo tax loolu mooy mooy mi ngi noonu amma bu dee ne loo xam ne ay légumes la loolee moom da ngay gis ne jumhurul ulama dañ ne zakat waru ca lu dul jullit daal war na heure bu ko bayee mu seet sarax bu mu ca génne jox ko miskin yi wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam naam ndax sàcc day bokk ci fasaad fil ard sàcc kay moo ci jiitu fasaad fil ard mooy yàq ci kaw suuf boo xoolee yàq ci kaw suuf sàcc li muy yàq ci économie réew kenn xamul nu mu toll ñu ngi am benn mbokk bu nekkoon ak ñun ci jàkka ji bamba ñaan yàlla na yàlla dolli ko yiw dolli ko ko lay wax ne seen dëkk ñoom ñu ngi dëkk ci kaw tali bi ci Thiès kenn ñemewu fa yar xar kenn ñemewu fa yar ganaar tool bu baax sax ñemewoo ko yor ñu bari dañuy bàyyi mbayum xaal meeg mbayu lépp ndax da ngay dem ba naan semaine prochaine ma góob bis ngay ñëw rek fekk gars yi gaari nañ projet jël lépp dem seen yoon loolee kon sàcc day yàq économie réew mi ngi noonu day tax ba nit ñi sax duñ ñemee def dara mais bu dul woon ak sàcc am na ñu bëri ñu nekk ndakaaru mën nañ ñibbi kaw mais yu bëri da ngay gis ne ñeme woo ko foofu kon sàcc moom ci fasaad yi gën a garaaw ca la bokk moo tax borom bi ne nañ dagg loxoom amma bu dee nag sàcc armée nag kookee moom dañ koy tudd mu xaarib kooku moom mën nañ dagg loxoom ak tànkam am na fu mu yegg sax dañ koy rey mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam dañu nekk jotaay di wala kulli xaal bokk na ci danger jëw mooy nit kiy jëw du moom du bakkaar bi muy def moom rek nit ki mën nga naan sàngara yow rek mën ngaa rey nit yow rek mais jëw moom foog nga koy def ak ay nit loolu kon da ngay gis ne bokkoon na la war mooy képp koo xam ne dañ koy jëw ñu waxal ko loo xam ne ni lu baax la ka koy jëw nga tere ko yonente bi alayhi salaam nee na képp koo xam ne da ngaa défendre sa mbokku julit ci foo xam ne fekkiwu ko yàlla dana fegal safara yowmal qiyaama loolu moom mooy mbir bi ba nga xamee ne daal jëw moom bokk na ci natt yi gën a garaaw yi suñu borom nattoo nit ñi ku nekk ci ñun war a ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla musal ko ci ci jéggal ko loolu tax borom bi bi mu koy wax mu ne mooy at-tawwaab at-tawwaab mooy koo xamee ne nii du dañ di nangu tuubug jaam loolu tax yow julit heure bu la yàlla nattoo jëw ka nga xam ne yaa ngi ko doon jëw nga la waay waxal ko lu baax jéggalul ko yàlla ca tuub ak lu mu bëri bëri del tuub rek suñu borom yàlla mooy ki nga xam ne ni mooy at-tawwaab mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam